salaamaaleykum suñu mbokk internet yu 5M TV Sénégal nuyu nañ leen jaajëfal leen bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bi di fi tataane xibaar yu weex te wóor ñu ànd sax ci jotaayu xibaar yi lay daal di dégtal rek li nga xam ni Guy Marius Sagna daal dina koy fësal moom député bi di xam ne ni sax jamono joojee sax nag muy bind lu nu mel mi ngi wax ni rek jàpp nañ nag lu toll ci téeméer ak juróom-ñetti fukk rek Sénégalais lañu ñu daal di jàpp nag te ko def rek du dul njiitu réew mi ji Macky Sall ci noone nag juróom fukk yu njëkk yi ña nga nag ca sûreté urbaine bu Ndakaaru yeneen juróom fukk ya ñu yóbbu leen ca section bu recherche bu gendarmerie bu Colobane fanweer ak ñeent yile ñu daal di leen yóbbu foofee ca gendarmerie bu Wakam yeneen fanweer yi ñu jàpp leen foofee ca commissariat bu jëppal juróom-ñett nekkee fii ci police bu Pikine ñaar yi nag nekkee foofee ca Kaolack yeneen juróom-benn doomu aadama yi ñoo ngi foofee ca Tivaouane ñu daal di tëye mu mel ni sax lu ñu mel nag loole mu nekk lu doy waar lu ñu nemmeeku jëm rek ci li fi amoon ci diggante rek ki lay di Ousmane Sonko ak ki di Mame Mbaye ginnaaw googu nag mu mel ni kile ji Macky Sall nag dafa di détourné suñu nag ressources yi nga xam nag am nañ ko ndax tey jii ne moom wax taxaw na temb rek wan ni mën na sax dem ba far rek doomu aadama ci li nga xam ne nag moom lay wane rawatina ci ñetteelu nag mandat bi lee muy candidature bi mu ñu bëgg nag exiger maanaam candidature bi mu ñu bëgg forcé te loolee duñ ko nangu benn yoon ndax moo waral nag mu def li ñu mel kile di Ousmane Sonko waaye ñun nag dinañ taxaw temb rek daal di ni kile di njiitu réew mi Macky sàll euh, que ni taxaw nañu nag daal di joxe rek suñu bakkan ci projet bi nga xam ne moom mi tëral na ko ndax euh, kile nag nga xam ne nag moom mooy Ousmane Sonko euh, projet bi mu am sax jëm ci wàllu Afrique loole nag dafa nekk lu am solo moom nag Macky sàll mënuñoo empêcher benn yoon rek ñu def li nu mel duñ ko nangu fenn nag di ko bàyyi rek muy installé wu fii ci réew mi encore ci noonu nag candidature Ousmane Sonko nag moom dinañ ko daal di fësal ndax kii di Ousmane Sonko sax moom dina nekk candidat ci atum 2024 bile waaye njiitu réew mi Macky Sall na xam ni moomee du nekk nag candidat loolee naka leer ci ay euh, noppam mu mel ni sax nag la cay des rek di ñëw kile di médecin yi daal di nañuy xool rek tax rawatina analise ak rajo yi nga xam ni defoon nañ ko nag jëm ci nag ñi nga xam ni rek moom la ñu daal di brutaliser maanaam ñoom la ñu daal di rek métital ndekki ni démb rek nervi yi sonal leen muy Macky yi yilee ndax gis nañu ci ñoo xam ni sax dañoo solu nag solu policier ak euh, solu gendarme euh, kon loolee nag mu mel ni sax nag ñun ubbi nañu suñuy gët gis bu baax a baax la nga xam ni moom la ñuy def rek ci réew mi loole teguñu ko fenn ba tax na rek ci lañu daal di xoole rek ba jël kile di Ousmane daal di koy génnee ca wotoom daal di koy dugal ci beneen woto rek ngir nag mënu ko noyuloo seen lacrymogène yooyee ñu gis ni nag li nu mel nag baaxul te loolee ñun tamit duñ ko nangu benn yoon fi mu nekk ni nag ñun taxaw nañu temb dawuñu daayuñu ci xeex bi nga xam ni moom la ñu nag entamé maanaam xeex bi nga xam ni rek moom la ñu bëgg amal dinañu booloo suñu biir rek ak lépp loo xam ne am nañ ko wéyal nag bi la xeex ba jot rek suñu wàllu démocratie ak constitution bi nga xam ni rek moom mais moom mooy saytu lu ñu mel ndax moom lañ fi teg nag ba jële fi kile di nag njiitu réew mi Macky Sall fi mu nekk ni rek moom rek la ñu bëgg mu abal ñu suñu réew mi élection yi nag bëgg nañu kile di Ousmane Ousmane Sonko mu nekk nag juróomeelu président bu Sénégal.